merci beaucoup question la bu am solo parce que euh, su événement amee fête am euh, toujours préoccupation bi mooy marché bi est-ce que approvisionnement dina doy mm-hmm. parce que su doyul euh, consommateurs yi dañuy am jafe-jafe su doyul tamit spéculation day am te tabaski dafa nekk nag parmi les plus grandes fêtes au Sénégal du fête religieuse kese fekkoon ni jaamu yàlla kese la di ma di guddi maa doon seetaan benn télé bañ naan euh, du obligation mais euh, fekkoon ni loolu kese la kon nit ñi du ñu sonn mais fii ci Sénégal dafa am aussi benn aspect social bu am solo boo xam ni sax moo moo tegu ci kaw aspect religieux bi parce que tey famille bu amul xar wala képp ku mat tabaski te amoo xaru tabaski euh, gis nga ni muy demee sur le plan social mm. moo tax kenn du nelaw tant que amoo xar dafa nekk aussi euh, fête boo xam ne nii dafa am aspect économique am solo parce que en dehors même mu mouton de tabaski tey ñu ngi estimer euh, soo jëlee marché bi li siy circuler ci xar. Mhm. suñ ko estimer dina mat ay 60 à 80 milliards yoo xam ne nii rien que xar yi kese la. Ah. soo si boolee nag soble pomme de col gi surtout yéen jigéen ñi ak xale yi. <laughs> xam nga c'est des centaines de milliards hein qui circulent. pendant la tabaski moo tax mu am aussi un aspect économique extrêmement important maintenant pour li nga xam ne nii mooy xar yi nga xam ne ñun moo ñu concerné mm-hmm. effectivement le gouvernement du Sénégal euh, te premier ministre euh, nga xam ni moom moo jiite tey gouvernement ministre yi nga xam ne nii ñoo yore tabaski lu mat fukki ministre ak ñaar te moom yàlla def na aussi mooy ministre de l'élevage et des productions animales mm-hmm. euh, monsieur Amadou Ba jël na toutes les mesures nécessaires ak ministre yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo siy liggéey pour que ñu organiser approvisionnement bi euh, mesures yooyu xëy na dinañ si dellu si waat mhm. euh, man naa si citer rek tout simplement lettre circulaire bi nga xam ne signé na ko pour fas andi ay facilité ci approvisionnement bi dindi taxes yi facilité aussi euh, le le l'assouplissement des contrôles tout à l'heure am na lu ngeen doon wax xam nga camions yi dañuy circuler diggante réew ak réew di circuler ci biir Sénégal di yàpp ay xar police ak gendarmerie dañ war a def seen contrôle mais nag dañ leen di ñaan puisque ay bàyyi ma la te contrôle bi su yàggee mën na leen a lor dañuy assum assouplir euh, contrôle yi mais néewuñu bu kenn contrôler euh, am na tamit euh, benn réunion bu mag bu mu organisé woon ñu koy wax conseil interministériel képp koo xam ni ministre nga di liggéey yëngatu ci tabaski képp koo xam ni ab service nga walla direction général ngay liggéey ci tabaski ak opérateurs yi ak organisation transporteurs yi ak consommateurs yi collectivités territoriales ñëpp ñëwoon nañu pour fekkee réunion boobu mu joxe ay